fàtte complètement mais ren moom. incha allah ren dañuy bàcc. ren yàlla. tabaski bi la. non jour tabaski mooy événement bi le 20 que sama anniversaire la. waaw le 20 moom mooy anniversaire bi incha allah. jour tabaski mooy nekk événement bi. waaw boobu nag moom Walf Fadjri chaque année ma invité leen tudd ma leen gis. Mm, Cheikh mu ngi noonu tëngee ci sama keppaar te du ñëw. man nag xam nga ah sama genre gi tabaski mu ngi fekk fële. jour de la tabaski. Cheikh encore une fois. ma làkk ko ci français yow say wolof wérul. jour de la je <laughs> le, le, jour de la tabaski. le jour ah, da jour. dans la le jour de la tabaski à partir de vingt heures. Ah. le la Kër Massar. cité ay nomadi. Ah. incha allah devant le lycée. incha allah c'est clair. soobee yàlla coach bu demul sax dañuy dem. léegi léegi nag dañuy ñëw euh, très rapidement avant ñëw dem euh, miroir de l'islam dañuy dalal euh, royuwaay Fatou Diouf Faye léegi léegi. tey ñu fas yéene waxtaanee Patrice euh, Lumumba ci euh, royuwaay euh, Fatou. waaw Aïcha ni ñu ko waxee Patrice Lumumba la ñuy waxtaanee dem ca Congo. mu ngi gane àddina ci ñaari fan ci weeru juillet ci atum 1925 de son vrai ñu koy Elias Okit Assombo mu nekkoon ab homme d'État congolais nekkoon premier ministre de la République démocratique du Congo ci atum ba ci atum ci juin ba ci septembre 1960 ñu considéré ko donc république démocratique du Congo comme mu nekk tamit foofu premier héros national ca euh, pays post indépendance ginnaaw mu def ay jàngam moom mu Lumumba liggéey na comme employé de bureau ci benn société minière euh, boo xamante ne moo nekkoon ci province bu Sud Kivu. Mhm. waaye tamit euh, loolu ginnaaw loolu nekk na journaliste foofu ca Léopoldville. nekk tey jii Kinshasa moom tamit euh, bu muy liggéey foofu ci société minière boobu boobu la tàmbalee xam lii di ay matières premières mhm, réewam mhm. Euh, ci la xamee solo bi mu am ci wàllu économie mondiale moom Patrice Lumumba loolu bokk na ci li nga xamante ne moom moo ko yóbbu ci idéologie tax ba tey ñu mujj koo faat euh, li nga xamante ne moom la dafa bokk na ci ci mbir yooyu la ci wàllu jàngam bu jàngam yooyu mu def ak yenn liggéey yu mu def ci yenn société yooyu ñoo ko may donc euh, idéologie yooyu yu bari ñu percevoir ko comme benn communiste boo xamante ne noonu la ko waa ONU jàppee woon moom Patrice Lumumba doon défendre l'idée idée boo xamante ne ci lu jëm ci wàllu international la bi nga xamante ne dafa doon déranger Belgique Belgique moom moo nekkoon ancien ancienne euh, puissance coloniale mm-hmm. euh, bu moom moo colonisé woon li nga xamante mooy Congo mm-hmm. mu nekk figure principale bu indépendance bu Congo moom Patrice Lumumba Euh, nekkoon tamit euh, koo xamante ne début bi moom nee na day allié ak guvernement bu Belge ci lépp loo xamante ne rek day jëmale kanam li di réewam waaye mu mu gis après du noonu AVM nag tàmbalee changé ci atum 1958. Mhm. ginnaaw benn exposition universelle bu Bruxelles amoon. Mhm. Euh, foofu ca Congo mu créé lii di mouvement congolais ci atum 1958 ci veyu indépendance bu Congo belge. bi nga xamante ne moom moo njëkkoon lañ njëkk a tëral di di élection yu njëkk foofu mm. ba tax ñu nommé ko premier ministre mm. boobu mu ngi am rek trente cinq ans loolu ci atum 1958 la léegi nag noonu la dem moom mu mu baax di continuer di wéy ba ci 17 janvier 1960 dañ ko faat mais avant faat boobu dinañ wax lan moo ko waral parce que am na discours bu mag boo xamante ne moom la def moom Patrice Lumumba Euh, def ko prononcé ko ci cérémonie de l'indépendance ci Léopoldville mhm. le 30 juin 1960 mhm. Lumumba ci gannaaw loolu ci atum dañ ko renversé destitué ko ci postam ba pare mhm. faat ko ci discours boobu nga xamante ne nag discours bu tàng booy seet daal globalisé la daal maanaam lépp daal loo xamante ne moom moo waral faat bi parce que foofu la ŋàññee li nga xamante moom mooy euh, puissance colonialiste bi di waa belge mhm. ak puissance étrangère yi film internationale yi comme ni mu amee rek mhm, partout mhm. ci discours am boobu pour résumer ko rek nee na nee na leen à vous tous mes amis qui avez lutté sans relâche nee na leen maa ngi leen di demander ci 30 juin 1960 bi di date boo xamante ne da ngeen koy garder gravé ko seeni xol mu nekk tamit loo xamante ne na leen jàngal lu jëm lu bari. Mhm. lu jëm ci wàllu li nga xamante ne moom mooy fierté loo xamante ne signifique euh, suñu wàllu dundin ëllëg ak euh, lépp loo xamante ne rek day tax suñuy doom ëllëg dinañ jàpp histoire bu mag boo xamante ne ñun def nañ ko ci wàllu ci wàllu liberté. Mhm. nee na Congo bi bu ñu proclamé ni ki tey ci. entente waa Belgique. Mhm. di ab réew boo xamante ne xarit la. Mhm. nga xamante ne ñu ngi koy traité ñun ñëpp ñu nekk benn ñun congolais ñi nga xamante ne duñ doon du sonoo ñun ne duñu fàtte benn yoon lutte bi nga xamante ne moom la ñu tàmbalee ba mu am mhm. tey. muy lutte boo xamante ne yàgg nañ koo def muy lutte boo xamante ne euh, ménagé wuñ ci lenn ak loo xamante ne day faagaagal lenn ci wàllu liberté ak yeneen. muy lutte boo xamante ne tamit. lii di jooy lii di ay feu de sang. Mhm. ni nga ko wax nee na tey jii kontaan nañ trop ci li nga xamante ne moom mooy lutte bu noble boobu bu juste boobu muy lutte boo xamante ne bu ñu ko defoon tey du ñu bàyyi lii di esclavage. Mhm. bi nga xamante ne moom la ñu imposer par force. Mhm. ci discours am ba tey de moom lay wax noonu. nee na mu nekk suñu sort ci quatre-vingts ans régime colonialiste. nee na suñu blessure ba tey mu ngi des ci ñun mu ne encore. nag dinañ ko mën a génne suñu mémoire. Mhm. te mu ngi jàkkaarloo boobu. tubaab bi tubaab bi. Mhm. ñi nga xamante ni roi Baudin ak Léopold II ñoom ñëpp jóge Belge ñëw toog ñu ngi koy déglu. mu mhm. leen di wax loolu. nee na xam nañ li nga xamante ne moom mooy liggéey bu métti boo xamante ne dañu ko exiger ci ay échange salaire yoo xamante ne mënul sax dundal nit ba nga suur. loolu la wax nee na mënul sax solal la ba nga normal. mënul sax nga loger normalement mënul sax permettre la. salaire yooyu pour nga élever say doom mhm. comme ni ngay élever ak ñeneen ñu la jege mu ne am nañ ay saaga ay insulte mhm. yoo xamante ne def nañu ko ay coups yoo xamante ne guddee bëccëg nee na parce que dañoo nekk ay nit ñu ñuul mhm. nee na du ñu fàtte tamit ne benn noir waxoon na ne non certes comme un ami mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls mm-hmm. comme ñun dañu doon tuutal vous yi moom blancs yi rek lañ ko doon wax mu ngi jàkkaarloo tubaab bi ba tey di leen di wax loolu ci discours am boobu mm-hmm, mm-hmm. nee na xam nañ dund nañ ci suñuy propre terre na suñu terre yoo xamante ne duñ koy spolier jël texte yi changé ko def lu leen di ko jox ci ñoo xamante ne ñoom lañ jàpp ne ñu am droit le plus fort nee na xam nañ tamit li nga xamante ne mooy loi boo xamante ne bu fekkee ne ci wàllu blanc la rek ak noir ñi ngi koy commandé pour li nga xamante ne moom mooy ñii di blanc yi bu fekkee ne lu am solo la wala lu mm-hmm. baax la ci ñoom nee na nous avons connu aussi des souffrances atros nee na boo xamante ne ci opinion euh, politique la ci wàllu croyance religieuse waaye tamit nee na ñu exile suñu suñu propre patrie ak suñu sort ci yépp nee na nous avons connu aussi ay dëkk yoo xamante ne ak ay kër yu rafet yoo xamante ne euh, ñii di blanc yi. Mhm. ñoom ñoo ci doon dëkk au dépens ci noir yi. Mhm. noir yi nekk ci situation bu metti blanc yi nekk ci sin euh, di dugg ci cinéma yi comme nu leen neexee di dugg ci restaurant yi dugg ci magasin yi nga xamante ne jàpp nañ ne ay magasin européen lañ te noir yi daal duñ fa am euh, lii di place maanaam luxe bi daal blanc yi. nañ mhm. ko jagleen ci bët bay ci discours bi. nee na kii oubliera enfant les fusillades au Paris. tant, euh, tant de nos frères ou mm. les cachots ou mm-hmm. furent euh, brutalement jetés ceux qui ne voulaient pas se soumettre à un régime d'injustice. Mm-hmm. mu ne tout cela mes frères nous avons profondément souffert. Mm-hmm. mais tout cela aussi nous que le vote de vos représentants élus agréé pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l'oppression colonialiste. Nous vous le disons, tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Mm-hmm. mu ne accord exposé ba Je remercie le, Congo, le Congrès pour la liberté de la culture et l'Université d'Ibadan pour l'aimable invitation qu'ils ont bien voulu m'adresser pour assister à cette conférence. Mm-hmm. C'est par ces contacts d'hommes par, des rencontres de ce genre, que les élites africaines pourront se connaître et se rapprocher afin de réaliser cette union qui est indispensable pour la consolidation de l'unité africaine. En effet, l'unité africaine tant souhaitée aujourd'hui par hommes politiques et les dirigeants de nos pays respectifs font preuve d'un esprit de solidarité, de concorde et de collaboration fraternelle dans la poursuite du bien commun de nos populations. C'est pourquoi l'union de tous les patriotes est indispensable, surtout pendant cette période de lutte et de libération. Les aspirations des peuples colonisés et assujettis sont les mêmes, leur sort est également le même. D'autre part, les buts poursuivis par les mouvements nationalistes dans n'importe quel territoire Ces buts, c'est la libération de l'Afrique du joug colonialiste. Puisque nos objectifs sont les mêmes, nous atteindrons facilement et plus rapidement ceci dans l'union plutôt que dans la division. Ces divisions sur lesquelles se sont toujours appuyées les puissances coloniales pour mieux asseoir leur domination ont largement contribué et elles contribuent encore du suicide de l'Afrique. Comment sortir de cette impasse, sinterroge t Donc, s'interroger Patrick, Patrice Lumumba, il dit, pour moi, il n'y a qu'une vraie cette vraie c'est le rassemblement de tous les Africains au sein des mouvements populaires ou des partis unifiés toutes les tendances peuvent coexister au sein de ces partis de regroupement national et chacun aura son mot à dire tant bien dans la discussion des problèmes qui se posent au pays qu'à la direction des affaires publiques. Une véritable démocratie fonctionnera à l'intérieur de ces partis et chacun aura la satisfaction d'exprimer librement ses opinions. Plus nous serons unis, mieux nous résisterons à l'oppression, à la corruption et aux manœuvres de division auxquelles se livrent les spécialistes de la politique du diviser pour régner. Ce souhait d'avoir dans les jeunes pays des mouvements ou des partis unifiés ne doit ou monopole politique à une certaine dictature, nous sommes nous-mêmes contre le despotisme et la dictature. Je veux attirer l'attention de tout euh, qu'il est hautement sage et déjouer dès le début les manœuvres possibles de ceux qui voudraient profiter de nos rivalités politiques apparentes pour nous opposer les uns aux autres et retarder ainsi notre libération du régime colonialiste. L'expérience démontre que dans nos territoires africains, l'opposition que certains éléments près du nom de la démocratie n'est pas euh, donc souvent inspiré par le souci du bien général. La recherche de la euh, gloire et des intérêts personnels en est le principal, si euh, pas l'unique euh, mobile. Lorsque nous aurons acquis l'indépendance de notre pays et que nos institutions démocratiques seront stabilisées, c'est à ce moment là seulement que pourrait se justifier l'existence d'un homme politique pluraliste donc muy discours bu gudd boo xamante ne ñu mhm. ko estimé presque douze dem na ko mhm. moom Patrice Lumumba mhm. moom la defoon donc euh, ci congrès euh, national bi nga xamante ne congrès euh, bu cérémonie inaugurale 30 juin 1960 muy discours historique moom la defoon ginnaaw loolu nag lañ ko jéem mhm. parce que en résumé ñu ñu ñu congolais yu bëri ñoom euh, dañ doon euh, dañ doon gis seen bopp en tout cas ci euh, discours boobule parce qu'il mhm. disait que c'était une vérité absolue mais aux yeux des Belges mhm. c'était un un affront c'était une une, une attaque indirecte boo xama attaque directe boo xamante nii Patrice Lumumba def na leen ko surtout devant le roi Baudouin c'était quand même benn affronta bon tey tey ji bu doon dañ ko dañ ko bu doon affront bu doon tey dañ ko contextualiser naan gatsa gatsa la la devant les les les Belges euh, mais devant également le le roi Baudouin mais aussi un appel fort boo xam ne def na ko à de ses compatriotes congolais bi nga xam ne en quelque sorte daf leen woo pour que ñu résister waaw def na leen ko parce que ñoom ñëpp a fa nekkoon ci congrès boobu ñii di ay euh, autorité belge autorité congolaise ñoom ñëpp toog mais mu leen di souffrance bi nga xamante ne am nañ ko. nii mm. di waa Belge Belge ñoom ñoo leen ko teg. Mm-hmm. ñun bu ñu ñëwee ne Afrique ñun. France et puis di ko cité di ko cité un à un un à mm. un parce que mm. loolu la dund moo tax mm-hmm. mu ñeme ko cité. ñu xam ne seen intérêt menacé na te moom lu mu jàngoon ci ressources minières yi ak jot lu mu jot a xam. jàppale ne mooy comme sànq Thierno Diop wax na ko mm-hmm. ressource minière bu Congo dafa rëy dafa bas. loolu rek mën na jàppale économie mondiale moom la moom Patrice Lumumba xamoon moom moo tax mu def ko intérêt belge commencé menacé. ñu ne nag moom il faut kii ñu xool ñu ngi ko mën a faate ñu ngi ko mm. mën a faatee. kañ lañ ko rey. ñu ngi ko rey ci bi ay rapport yoo xamante ne révélé nañ ko ci ay codétenu kii di Maurice Mopolo ak Joseph Okito ñoom la ñu maltraité ñoom lañ maltraité ndoo mm-hmm. te dañoo jàpp ne euh, euh, police provinciale boo xamante ne moom moo ko def nekk te Katanga. Mm-hmm. ñoom ñu ko def maltraité ko jàpp ko bañ ko arrêté lañ ko maltraité. ba mu noonu 19h40 lañ la diggante 19h40 19h43 ba léegi waxuñ heure mm-hmm. exacte bi ñu ko mm-hmm. rey. Mm-hmm. nee nañ moom lañ ko maltraité mu dee ba mu paree ñu daggate ko démembré ko. allahu akbar. ba mm. pare jëlal acide sulfurique sottiwaat ka ba gisuñ benn membre am mais am na image yoo xamante ne bu ñu xoolee dinañ gis mooy benn bëñam. bëñam 60 ans après. lañ ko restitué. nëgëri daaw nëgëri daaw. nëgëri daaw la daaw la ans après nga loolu duré na. te 2011 commencé woon nañu poursuivre enquête yi pour xool mooy booy seet dirigeant Afrique Thomas Sankara dañ ko fusillé. ñun ñëpp ñu leen faatee même moom Patrice Lumumba ci condition yi métti lañ ko def. Mm-hmm. ci détention woo xamante ne du ko torturé ba faat ko. nga xamante ne daal yàgg nañoo euh, faagaagal. Mm, dirigeant africain dirigeant africain yi. vraiment seen bos booy seen moo gën a métti parce que mm. dañu doon jàmmaar la ak ñoom directement. Mm-hmm, mm-hmm. directement lañu doon jàmmaar la ak ñoom te pourtant seen propre intérêt rek réew lañ doon bëgg a defar. seen koom-koom réew mais nag régime colonialiste bi aussi beaucoup plus fort. armé et puis voilà quoi bu ñu bëggoon faagaagal.